teelu pays subsaharien bi nga xam ne moom moo amal li nga xam ne kat mooy ab eurobond ci lu tolloog rek quatre cent cinquante milliards waaye naam xam na ne Sénégal am na expérience lool ci marché international bile waaye gis ne kat taux ba nga xam ne moom lañ ko joxe daal yokk nas la fa. il faut comprendre que. foog ñu comprendre nag ne taux bi dafa delluwaat ci euh, dotation yi nga xam ne euh, ci yenn ci ay euh, agence yoo xam ne ay Moody's. ay yoo xam ne fit si ñoom euh, ci euh, li ñuy basé wu mooy ci perception bi ñu nga xam ne am nañ ko ci rek euh, dëkk bi comme Sénégal daal dafa delluwaat ci déficit budgétaire wala dette bi wala gestion économique bi nga xam ne mooy ci dëkk bi waaye tamit stabilité politique ak financière ci 2021 jàpp 2024 Sénégal mi ngi woon ci jiixi jaaxa gu métti ci wàllum politique ba ñu bëri bëri ci ay investisseurs daal di ragaloon dugal seen xaalis ci mim réew eurobond bi moom risque la rawatina ci wàllum bor bi. et cela peut dégrader carrément la note. waaw xam nga loolu aussi euh, dafay dal di nekk loo xam ne ab pari risque la ndax bu fekkee ne Sénégal yi tamit li nga xam ne mooy koppar yi investiruñ ko ci ay projets yoo xam ne dina am solo dina gën a yeesalaat dunduk askan wi loolee tamit euh, pari. risque là. mais qui peuvent améliorer la situation économique donc c'est perdu d'avance. ki nga xam ne xam-xamam màcc jëm ci wàllum koom moom ma ngay sàkku ci autorité yii ñoom koppar yi nga xam ne jox nañ leen ko ñu mën ko utiliser bu baax a baax waaye tamit gën a naatalaat situation économique bu Sénégal. mais vous dire que c'est pas. waaw damay sàkku ci état bu Sénégal ngir mu def nànk ci utilisation ci koppar yi ndax it euh, koppar yooyu nga xam ne dañ koo daal di jël ñu mën koo jagleel ci ay projet yoo xam ne dina am solo waaye tamit gën a fexe euh, dunduk Sénégal yi gën a ñoŋ waaye tamit euh, xoolaat situation économique euh, ci dëkk bi. et sociale du pays. waaye ñu gis ne levée de fonds bi daal la muy traduire mooy santiment ci investisseurs yi ginnaaw élection bi nga xam ne am na waaye ñuy fàttali ne Sénégal bokk na ci nga xam ne kat am na ci yaakaar rawatina ci investisseurs yi le